فزت بزار في الحسنات سيداتا mbokk yi ni leen ko waxee euh, ñu ngi ànd ak yéen fii ci Porokhane waaye ñu ñëw ak yéen fii ci daral gi nga xam ne mooy daral gu mag gi nekk ci biir Porokhane mu doon daral goo xam ne xam ngeen ne bisu màggal gi mbooleem ñi nga xam ne ñoo yaakaar Serigne Touba rawatina. di jëfal soxna si fii danañ fi dikk di fàggu li nga xam ne mooy li aju ci wàllu bernde yi noonu it mbooleem nit ñi nga xam ne dañuy bàyyi ko ci gox yi fasantikoo dañ fiy daje ñu feggoog sëñ alfa mu doon alfa Sow mu doon waaw kër Adama mu doon kenn ci eh, ñi nga xam ne ñoo taxawee daral gi su ko defee dana wax ci turu Demba Sow mi nga xam ne moo jiite daral gi su ko defee it ñu leeral njëg yi nga xam ne ñoom def nañ ko mu doon ay jàppandal ngir mbooleem koo xam ne am nga yéenee def ay bernde ci bis bi njëg yooyu su ko defee mu leeral ñu ko. waaw njëg de moom a ah, ñu ngi ciy def jàppale de bu baax a baax njëg gi moom maanaam bu ci toll ci ci dalee ci ñaar fukk ak juróom fanweer ñeent fukk juróom fukk ba ci bési 350 bési 400 bési téeméer bési téeméer ak fukk am na fi waaw sa am na fi waaw loolu daal mooy li nga xam ne ni moom laa fi gisagu ah xam na fi xarit am na fi wax dëgg yàlla xarit cinquante mille euh, cent mille trente cinq trente mille quarante loolu yëpp mu ngi fi mu ngi fi waaw waaw danañ la waa jàppandal waa jëpp soxna ji ñoo soxna si lañ yaakaar soxna ji mooy suñ lépp ñun waa Porokhane rawatina fii ci kër Yugo waaw ak ci kër Adama yëpp waa soxna ji moom la ñuy doxee moom la ñuy wéyee waaw ñu koy ñu koy sakku ñaan da ko ñaan ndimbal waaw yàlla defal ñu sutura dolli jàmm waaw ci daral gi ndax ku fi ñëw danañ la jàppale ci ngir loolu asalaamaaleykum non amaguñ fi benn jafe-jafe waaw. waaw bu baax a baax a baax mosuñ fee am benn waaw yu bari um, bu baax waaw waaw maanaam euh, département bi euh, wax dëgg yàlla ku fi am nag da ko indi fii waaw nga nekkee fi teraanga ba màggal gi jeex waaw ñu ngi sant yàlla sant soxna si euh, mu ñaanalu jàmm ci daral gi liñ fi am ñu jëriñoo ko ci kaw barkeem waaw sëñ Mountakha kay moom moom kay mooy suñ baay mooy suñ lépp ñu koy ñaanal mu yàgg fi eh, ndax eh, xewal bu mel ni ci dëkk bi dañooy ñaan yàlla yàggal ko fi mu continuer ko rawatina doomam bi nga xam ne mooy sëñ Abdou Rahmane mooy suñ lépp mooy suñ wasila ñun gore yi nga xam ne nii eh, ñooy magam mais daf ñu jox léppam jox ñu cëram wasalaam